Euh, alors euh, Simon li la wax rek euh, tey jii communiqué bu présidence bi dafa dëggal suñu lank dem wuy ji président de la république parce que ñun ci gëm sa bop dañu japp né bañuy bind Macky Sall c'était pour mu dox suñu digënté ak conseil constitutionnel waye ku ne xamna né bu liste candidat yi xasee ba rot jeex dogalu conseil constitutionnel kenn du ci delu ginnaaw te kenn amut lenn nit loo xam mën nga ko euh, song manam ci walu recours euh, kon ñun bañ giñu bañ dem wuy président Macky Sall euh li nga ne nañu ko ne ndaje la mu amul ben njariñ et ndaje mu amul njariñ nelaw euh, ci benen fan euh, PDS tay ji am taxaway taxawaay bu am day wone ne xex bi day continuer PDS ñew nañu fekk ci ñun les recaler xexu PDS suñu xex lay doon parce que japp nañu Accusations, yi ñu teg ci ndodd conseil constitutionnel c'est des accusations yu graw ay ñu parce que euh, la corruption maanaam guerre la wax dafa am conseil constitutionnel te loolu bu ñu yeggee ba ci firndeel ko day tekki tout simplement euh, processus bi processus bu processus le bu ci njublang conseil constitutionnel et loolu mënuñu cee euh, continuer et Sénégal ñu alors, ce communiqué de la présidence ne fait que conforter notre euh, euh, refus euh, d'assister à cette audience avec le président Macky Sall. il s'est posé un problème de temporalité. On a saisi le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'était pour légiférer par rapport à nos droits qui ont été bafoués par le Conseil constitutionnel. tout le monde sait qu'après la publication de la liste définitive des candidats, il n'y a plus de recours possible. Alors, pour nous, il n'y avait plus d'intérêt euh, d'assister à une audience avec le président de la République. Euh, toutefois, il faut considérer euh, à notre niveau que le combat continue. Le combat continue. Le, le, le PDS, n'oubliez pas qu'ils ont déclenché une procédure. Le PDS parle de soupçons euh, de corruption et c'est des faits extrêmement graves. Euh, si cela s'avère euh, vrai, tout le processus devrait normalement tomber à l'eau et nous serons rétablis dans dans nos droits.